Khady Gaye euh, lay wuyoo euh, Mbaare moom nag dafa def euh, lu am solo ci baccalauréat bi am na mention waa soxna Fatick maa ngi lay ziar di ziar ñu bokkal plateau bi yëpp également di ko def pour suñu mbokk téléspectateurs yi mm-hmm. di fàttaliwaat également suñu solidarité ak suñu soutien ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi yàlla na leen ko yàlla teggi bon ba léegi dañuy continuer ci wàllu éducation mais surtout ci baccalauréat bi xam nga ba léegi résultat yi ñu ngi toll woon ci premier eh, tour bi léegi deuxième tour bi daanaka jeex na ba résultat yëpp jeex na mm-hmm. euh, ñu jëm a dem nag lycée Seydina lycée d'excellence Seydina Limamou Laye bu nekk ci Géejawaay Guédiawaye mhm. tase fa benn xale bu jigéen mu ngi wuyoo Khady Gaye mhm. moom euh, candidate la woon en série S1 mhm. daal dinay am baccalauréat avec la mention très bien donc elle la première d'ailleurs du centre centre boo xam ne la bëri woon na ay candidats mais macha allah elle est du lot donc portrait am la ñuy dressé après ñu ñëwaat ci plateau moom Khady euh, bien am na une moyenne générale de 16 virgule 3 mu nekk nag élève boo xam dafa nekk en série S1 xale yu jigéen ñi ñu ngi koy wax ñu ngi dame le pion fu ne ci euh, wàll wu ne euh, fi mu ne nii nag série scientifique yi lanu jël muy s di fa def lu doy waar ñu dem seetaani nataal bi ànd ci ak Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop. Euh, ci xelam dafa mës a jàpp ne moom ab scientifique lay doon ab scientifique boo xam ni dina def jaloore ci matière bi muy yëngatu. en général ñi ñuy jël prix concours général ak ñi nga xamante ni ñoo jël premier ci école bi dañ leen taf tableau d'honneur en général ñëpp S1 lañ def maanaam meilleur meilleur élève école bi ci S1 lañu jógee ñoom lañuy primé concours général ñooy am meilleur moyenne ñu yëpp daal ñun nag ñu bëgg bokk ci groupe boobu moo tax ñu ne dañuy def euh, la série S1. mu mel ni Khady Gaye tàmbali na ci am ndam. ndaxte xale bu jigéen bi le candidate la woon série S1 moom mooy meilleur élève ci centre bi mu doon defee baccalauréat ak mention très bien. S1 moom S1 moom boo amee not bu nga ne mat ak PC rek après di c'est facile pour nga am mention parce que ñoom ñaar coefficient 8 la waaw mat maa ngi am 17 euh, science physique ma am 18. mais n'empêche yeneen matière littéraire aussi il faut nga liggéey ko tamit parce que mention très bien six la il faut nga am si matière littéraire ak euh, SVT ay moyens yu baax pour que affaire yi ñu mën a compenser wu nga mën a am moyenne six anglais am na six français am naa quatorze mhm. waaye nag balaa moo egsi ci loole Khady daanaka da doon jàng bu baax a baax loole ay jàngalekatam daal di ko coy fekk. ñun li ñu may chance fii nii S1 mooy dañoo teel a commencé jàng septembre lañ tijji. léegi si sax septembre bi suñu prof yi temps yooyu nga xam te ne cours cours commencé gul woon septembre bi temps yooyu nga xam te ne cours yi commencé wul woon dañ doon dañ doon profité di ñëw di yenn pour pour jéem a terminer programme en général ñu fi fin en fekkee PC si fin programme bi lañ commencé en optique dañoo def euh, quatre leçons après doo commencé yeneen programme yi tout ça en septembre et en octobre ñu jéem a def le tout presque ba ñuy dem confinement sax li ñu li ñu dese woon ci programme bi bëriwul. tey jile ginnaaw bi mu amee baccalauréat avec la mention très bien S1 ñu daal di koy may benn bourse d'excellence boo xam ni dafay dem fële ci bitim réew àggale fa ak njàngam xadi nag nee na lii la bëgg a def. waa à l'avenir euh, dama bëgg a ay. Euh, c'est tout ce qui touche à, aux mathématiques na nekk lu nekk mathématique en ce moment je pense à, à l'informatique à, la cryptographie en cybersécurité lu mu ci mën a doon fii ci lycée bi di lycée d'excellence Seydina Limamou Laye bi nekk fii ci Ndakaaru xale yu jigéen ñi ràññeeku nañu loolu ci série scientifique yi ni ko Khady Gaye def série scientifique yi xale jigéen yi ràññeeku nañ ci rawatina nag ren jii loolu nag euh, ki ko gën a euh, euh, biral rek mooy proviseur bu lycée sergent Malamine Camara moom nag mu dellu siwaat ci rek ne danoo teg ay politique yoo xam ne dafay jàppale njegemaar yi ñu gën a am taxawaay ci série scientifique yi ñu teewlu Kumba Ñang Mbuup ay moom mooy proviseur bu lycée boobu mun nañ ne Sénégal yëpp actuellement foo jël da ngay gis ne xale yu jigéen ñi ràññeeku nañu lool euh, ci ci ci ci école yi euh, ci seen lim place boo dem fi nekk nii da ngay gis ne euh, sensiblement bu ñu ëppul sensiblement ñoom ñoom ñuy ëpp xale yu góor yi. donc loolu mun na nekk luy expliquer que ñoom aussi ñu ëpp ci liy jàll loolu loolu benn la ci. Euh, waaye boo gisee qualité bi tamit euh, maanaam euh, ni ñuy jàlle ni ñuy jànge résultat yi da ngay gis ne xale yu jigéen ñi ñoo ci gën a ràññeeku da ngay jël classe par exemple nga gis première bi deuxième bi troisième bi lépp ay jigéen lañu ñun fii dal nañu am naa benn premier benn terminal S s bu nga xamante ne ni ñoom ñëpp ay jigéen lañ mais première bi deuxième bi troisième bi ñoom ñëpp ay jigéen lañ. donc pour pour montrer que effectivement xale yu jigéen ñi fi mu nekk nii jàmbaare nañu lool ci wàllu njàng. mu ngi noonu xale yu jigéen ñi jàmbaar lañ lycée Seydina Limamoulaye itam euh, Chérif di lycée boo xam ne euh, wax dëgg fa yàlla chaque année dañuy génne d'excellents résultats keroog rek ñu koy wax Habib naan ko école de la banlieue faaw nga ñëwoon ñu quand même ci historique gu lycée Limamoulaye parce que ñi fa jaar ci ay jàmbaar bëri na euh, firnde bi mooy soxna Sidi Khady. waaw soxna Sidi Khady Fati gis nga surtout ah, xale ki nga xamante ne mooy soxna Sène dafa mucc ba pare def bagam ci lycée Limamoulaye la mm-hmm. boo xamante ni quand même malgré stigmatisation bi ñu def yenn saa ci banlieue bi day daara joo xamante ni day siggil euh, banlieue bi comme ni nga waxee ndax rek ña tàggatoo ak tamit gis nga concours général sax bu daa ñëw lu ci bëri ñoom ñoo koy raafale même si bu séddale nga amee dañuy rek focaliser wu ci lycée yi nga xamante ni na lycée d'excellence leen tuddee wala internat la te fii du régime internat ñi ngay gis ñi ñëpp pare ñu ci bëri ci mbënn ma leen di delluwaat mm-hmm. bu jàng jote ñoo jàng te fu ñu dajeek ñenn ñi daal naa moom moo laaj bi doon laaj mooy xaa kaa Khady bi mën nañ ko jàppee cas isolé wala am na yeneen ci lycée ba exactement Chérif euh, maa ngi lay donc li nga wax dama koy dëgg rek parce que quand même lycée Sey lycée d'excellence Seydina Limamou dara tax ñu d'excellence ab lycée la boo xam ni yàgg na di joxe ay résultats ay résultats satisfaisants l'exemple du concours général l'exemple également du baccalauréat gis nañu par rapport aux autres établissements yoo xam ni peut-être les conditions ne sont pas les mêmes souvent quand même dañ leen di bu ñu leen jiituwul sax duñ leen sore donc euh, chapeau bas dañ leen di féliciter également di leen gën a encourager mais le cas de Khady est loin d'être un cas isolé parce que ñoom déjà ci seen classe rek nee nañu ils étaient au nombre ils nombre de 12 donc euh, parmi ces 12 y avait des filles yoo xam ni ñoom tamit elles ont la mention En d'autres, d'autres séries également, S2, c'est, c'est la même chose. Il y a eu des filles qui ont obtenu des mentions. Donc, euh, c'est un lycée Bohamni qui fait de bons produits et qui fait de bons résultats. Donc, Khadigay, c'est juste un exemple parmi tant d'autres et parmi d'autres établissements également. Khalid Atumren, baccalauréat, vraiment, elles ont fait des exploits. Des exploits peut-être qui peuvent avoir des, des raisons. Peut-être, maintenant, il y a des raisons qui expliquer en partie les résultats. voilà euh, affaire bi am na solo Aminata Mbaré comme ni nga ko waxee euh, je pense que lii sax dina war na tax suñu enseignement supérieur bi euh, ñu gën a pacifier espace bi gën a jox xale yi opportunité parce que kii soo ko xoolee ab xale bu ndaw la. soo ko yóbbee université. ce serait bien mu nekk ci environnement bu baax nga xamee ni lii di feeñ ci moom doo ko ñàkk quoi promesse yi. gën a euh, yokku je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire mais euh, résultat yi lan moo koy expliquer ok Cheikh euh, gis nga atum ren baccalauréat ren jàpp nañ ne série scientifique yi quand même résultat yi am na solo surtout xale yu jigéen ñi def nañ ci jaloore keroog ñu ngi joxe benn exemple lycée bu nekk fële ci Podor gis nañu exemple lycée la maison d'éducation Mariama Ba avec 100 pour cent pour les séries S. et cinq mentions très bien cinq mentions très bien. lycée scientifique d'excellence Diourbel. 20 mentions très bien pour la série S1 donc ce n'est rien ce n'est pas rien et loolu peut-être dafa am ay politique yoo xam ni gouvernement bu Sénégal taxawal na ko pour gën a jàppale xale yi surtout lu jëm ci wàllu série scientifique yi mm-hmm. l'on se rappelle en 2014 amoon ay concertation yu amoon sur l'enseignement supérieur mm-hmm. donc gouvernement du Sénégal dafa jëloon benn orientation bëgg ne au niveau des des examens de fin d'année surtout pour ce qui est du baccalauréat ñu gën a accentuer ci séries scientifiques yi. Mhm. Euh, au détriment des séries littéraires je n'ai rien contre les littéraires je suis littéraire <laughs> mais bon. Euh, dañu jàpp ni peut-être il faut que ñu changer tendance bi ah il faut ñu changer tendance bi donc ci cadre boobu la ñu nekk mhm. ñu jàpp ne ay politique ñu koy taxawal pour gën a encourager les jeunes filles mhm. qu'elles soient à l'école et qu'elles soient qu'elles restent que le maintien des filles à l'école euh, devient une réalité et également qu'elle soit beaucoup plus euh, truc au niveau des séries scientifiques. waaw balaa ngay dem ci Modou Fall euh, euh, politique yooyu ñu doon taxawal maintien de filles à l'école nga xamante ni ñu ngi ko commencé woon ci ay fukki at ci ginnaaw. est-ce que duñu duñ ko dëppaat. def euh, <laughs> scolarisation des garçons parce que a ce rythme là waaw non waaw tant mieux waaye tamit ah, ah, euh, ah non mais mais on euh, dirait que ce sont ce sont des politiques léegi ñoom soo xoolee ñoom ñooy ëpp ci classe yi ñoom ñooy am résultat yu gën a baax yi léegi sax comme keroog rek gis nañ euh, nu mu tuddati chiffres ci wàllu BFM bi. ci wàllu BFM cent six mille et dans certaines localités quand même elles se euh, ces filles là qui ñu ñuy am ay résultats en fait. Mhm. ñoom ñooy def liggéeyu kër gi. soo xoolee dañuy wàcc dem togg gi euh, am na benn jeune fille bu ma gis ci biir gi am elle a eu une femme de ménage presque vingt sur vingt. Euh, elle elle est elle collège mais su wàccee day dem liggéey seen kër. day dem liggéeyal yaayam et tout donc xale yu jigéen yi Cheikh Tidiane daal vraiment dañ leen war. di gën mi am na ñoo mooy la wax mën nañoo fanaane ngacc ci ndox mi xëy suba dem jàngi. dem jàngi waaw am ah, résultat yu wax. waaw sama en tout cas en tout cas euh, Faty mu ngi ci ci ci ci domaine am ndax fu mu ne nii moom dëgg na lool ci xale yi jigéen yi fàttali tuuti Limamou Laye euh, tey xëy na euh, résultat yu mënti am moo nekkoon euh, le seul lycée dans la banlieue. ñun à l'époque bu ñu fay nekk. Mhm. Euh, y avait pas après y avait le lycée moom moo jur lycée Parcelles. Mhm. LPA. Mhm. après y avait le lycée de Thiaroye. ainsi de suite donc moom moo catalysé woon tout ce qui est élèves diggante Parcelles Pikine Yëmbal Thiaroye. donc mu nekk lycée d'excellence boo xamante ni euh, jaar nañ fa. Mhm. et puis voilà y avait un personnel administratif extraordinaire. et puis pour te dire avant nga yegg suñ demee fii ak 10 ans 15 ans ci kanam euh, góor ñi ñooy commencé di laaj parité ah parce que poste de responsabilité yëpp jigéen ñi ñoo koy yor. parce que ñoom ñooy réussir ci jàng bi. <laughs> léegi léegi léegi ci des résultats aussi postes yooyu ñu leen di jox c'est pas parce que sont femmes mais c'est parce qu'elles font des résultats. donc euh, c'est des postes yoo xam ne dañ ko mérité. mais la tendance

am sa BFM wala def sa baccalauréat nga bàyyi jàng quand ci ñoo xam ne soo leen xoolee nga xam ne ñi elles étaient vraiment vraiment douées mais amuñu woon chance boobu donc loolu ba léegi nekk na réalité terewul jigéen ñi ñi ngi wéy di di Caravaché. Mhm. Caravaché bi tam jàppale ni am na ay organisme yu leen di xeexal. Caravaché comme ay organisme yoo xam ne ñu ngi xeexal jigéen ñi xam nga. ñu ngi leen di dégg ñu ngi Amina combat boobu nañ ci eh? bañ a dugg ak moom ñu ngi leen di dégg organisme yi mais am na obstacle euh, ba léegi quand même mooy mariage précoce yeeg yooyu. mooy li ma lay wax taux d'abandon bi ba léegi. yenn zone yi fii ci Sénégal ak mhm. li ko war a bari na. Mhm. muy facteur yoo xam ne dafay socio-culturel la. c'est vrai que ni mu ko waxee noonu la SCOFI yi. bi ñu leen fi tegee samp leen fi gis nañ ay femmes yoo xamante ne am nañ détermination ngir lu xeex ngir jigéen ñi. des ci daara yi parce que bu njëkk dafa amoon injustice boo xamante sax da am bu buñ tooñee benn xale boo xamante ne jigéen la par exemple ñaari góor góor a jigéen nekk ci benn daara ñu ñu séq dara ba kenn ki tooñ ñu dañuy ko jël ko jigéen ki dàq ko donc loolu les les femmes se sont battues quand même ba nga xamante ne léegi on maintient les femmes l'école boo waral tey ñu am quand même résultat yu baax yi nga xamante ni c'est bien il faut encourager mais continuer quand même fi nga xamante ne zone de défense la c'est ça ñu gën a jàppale jigéen ñi nga xamante ne quand même kon ci ci wàllu mbaare laa lay laajee sax tey ji résultat yi jigéen ñi am ndax politique la wala euh, yan facteur ñoo ñoo ñoo ñoo indi li ni mel. d'accord ba tey seen résultat yi mel ni ñu mel. Mm, excuse-moi euh, Maodo je disais bu ñu jëlee bi xam nga contexte bu particulier la donc il y a eu des mesures particulières qui ont qui été prises yoo xam ni peut-être mën nañu ne. Euh, bokk na ci li joxe résultat yi parce que gis nañu atum ren déjà reprise bi bi mu amee xale yi y avait une attention particulière pour ñi nga xam ne ñoo nekkoon classe d'examen déjà également ci biir classe yi rek disposition yi am na changement parce que da ngay gis ay classe de 20 habituellement c'est des classes de 60 à 70 donc euh, beneen aspect peut-être bu ñu mën a expliquer qui qui qui est sociologique c'est que souvent am nay candidats yoo xam ni c'est peut-être c'est sous la pression la ñuy gën a concentré la gën a peut-être bàyyi xel peut-être yooyu yëpp c'est des facteurs yoo xam ni mën nañ ko lim au-delà de politique yi nga xam ni au Sénégal ñu ngi koy développer pour le maintien des filles dañuy gis souvent au niveau des IA des inspections d'académie ay concours yu ñuy organiser Miss Math mm-hmm. Miss Science donc loolu lépp ay politique la mm-hmm. au niveau du ministère de l'éducation internationale également, il y a des politiques qui sont développées. Par mm. exemple, euh, il y a le programme pour la promotion des femmes. boo xam ni day euh, day gën a sensibiliser faire la promotion des femmes au niveau de certains postes de responsabilité boo demee léegi lycée yu bëri mhm. da nga fekk également ay proviseur jigéen mhm. donc loolu lépp ci politique yooyu la yoo xam ne peut-être de proviseur jigéen bàyyi ma delloon dugal sama professeur exactement madame Bouk madame Bouk moo ma jàngal histoire géographie ah, en terminale au lycée de Daara c'est un plaisir de le voir là ah, ci mu jàngale. macha allah très bien sooy très bon résultat foofu tamit. Mhm. avec euh, des classes de terminale yoo xam ni. S1 la wala S2 mais les trois premiers ou les quatre premiers ce sont des donc loolu lépp day wane ne macha allah xale jigéen ñi merci beaucoup ñu ngi bàyyi seen waar Aminata euh, jigéen ñi jàmbaar la ñu boo demee euh, Columbia ay Harvard Yale Princeton Cheikh Anta Diop yaa ngi leen fekk fépp ñuy euh, dóor waar yaa ngi leen gis ci série scientifique yi ñuy liggéey gàcce ngaalaama soxna yi ñu leen di souhaiter un très bon courage di encourager itam góor ji am baccalauréat mm-hmm. non di leen féliciter di encourager itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la ñu recalé wala ñoom la ñu ajourné lu ci mën a am. Euh, bu concours général amul tamit am nañu fexe ñu récompenser mais bien sûr parce que ñi ngi naan quand même je crois que am nañu am na bourse mention très bien quand même di nga am di nga am bourse quand même d'office en tout cas Aminata Mbaré ñu def. nan leen recevoir même bu doon président de la République je pense que concours général amul ndax mbas meeg yi mais ñi nga xamante ne les meilleurs élèves voilà meilleurs élèves yi symboliquement soo recevoir leen voilà pour une discrimination positive quand même am na euh, exploit yoo xam ne soo ko defee comme ni ko Chérif waxee mhm. euh, nañu jàppale la surtout tamit euh, xàllal la yoon ni gën la ci condition yu gën a baax euh, parce que réew mi moo la lay jëriñoo après merci beaucoup Aminata Mbaare Sow euh, ñu dalal léegi a njaay ci société